bi xayra mawlidi tabax daal mbooloo daal ñoom ñoo nekk seen yaay ci ginnaaw ñoom ñooy feeñal seen yéen waaw waaw ñoom ñooy jàngale soxna ñoo nekk ne la ci ginnaaw soxna yi ñoo nekk ñoo nekk ne góor na yi ñoo nekk ne

ñaanal leen ci barke ci Abdou Khadir barke Serigne Touba ñu matale yéen a jooj la ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ko day la ñaanal lool rek jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam naa lii day luy dolli ko rek ci jëfam waaye nit ku baax la koo xam ne nii ne sëñ nekkoon noonu nga ko waxee rek xam ne ñu soppi wu ci dara ci loolu la nekkoon ci loolu la ko topp waaye gis nañ ne ni mu taxawoon ci teewam daa fedd laxasaay lu yitte ju am ci kër gi mu bokk ci ñi ca man waaw kenn mënu ko ci kenn musu ko man ci dara waaw kon nag loolu tey lii day ñëw rek dolli ko ci li fi nekkoon noo ngi ñaan yàlla sàmmal ko lépp ak mboolem ñi nekk ci ginnaawam boole leen musal li ñuy sàkku ci sëñ bi seen digg ak sëriñ bi lépp yàlla defal leen jur kaw seen jot baax na jërëjëf xam naa tey dafa xat ak àjjuma waaw waaye sant noon bu baax a baax a baax sant nañ mboolem ñi màndal di leen ñaaxit ndax li ngeen am jafe na jëwriñ ji dox ku ko am da ngay nangoo topp ci moom moom gàllankoorul kenn kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax a baax kenn ku ci ne lu jàppoon na ko gën di jàpp akalla waaw moom daal nii muy def lu mbir dëgër dëgër loo ko ci wax loolu lay def kon nag ñi mu àndali suñ ko defee noonu rek man tawassal bi waasi leen wasal loolu fi lool te wér yàgg fi lool te wér Mbacke Bal yàgg fi lool te wér amiin yàlla suñu ko asalaamaaleykum wa ngi ziar mbokk taalibe yëpp di jox ko nekk waa ci waayam di nuyu ku ci nekk turam ak santam di baal ñu paax di leen balaax waaw te dañoo ñëwoon ci màggalu Cheikh Abdou Khadir Mbacké gi ñun wax daara Touba Parade bu Kaolack comme chaque année ni ñu koy defee rek ñëw ziare sëriñ bi daal di koy yeggali kàddu yi nga xamante ni mooy liggéey bi ñu amal fee ci diwaanu Kaolack moom la ñu ñëwoon di ko eggal sëriñ bi gannaaw bañ ziaree sëriñ ba noppi nag yëkkati ay kàddu cant yu jëm ci mbooloo bi dañoo fas yéene dem ci jumaa ja daal di ziare barab yi bu ñu jógee dem kër sëriñ Omar Yaay ak fa dalal fa ba ci kanam door a yeewee ko waat loolu moo nekkoon li nga xamante ni moo nekkoon programme tey bi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ulufu salaatun maxsala min bilantiha ala abdi baaxin saana ruuhi wa jismaani ñu ngi am mbégte bu baax ci teewaay bi nga xam ne daara Touba Bax daa teew na ci ci jëwriñ ji di Serigne Omar Ndiaye moom Baye Cheikh sëñ Mamor Ndiaye mi ngi noonu di door a ziar moom it jóge fi sëñ Modou Ndiaye gi nii sëñ seen jëwriñ sëñ Gumba fay ak waa daar ji yëpp ak sëñ Fallou jaañ ñu ngi am mbégte nag ci bis bi ni nga xam ne tout tànk yi taxawoon nañ ko ak Pastef bi nga xam ne matal nañ ko ci ndax def nañ ci Pastef def nañ ci organisation am nag dogu itam ndax waxtu yu ñu jógee Kaolack ku ne xam ne ne loolu dogoo ko man ak organisation loolu la leen sëñ Abdou Khadir teeroo bi ñëwee ñu gis sëñ bi gis gu jàppandi siyaar ko siyaar bu jàppandi siyaar bu dal ñu ñu ci am yaakaar nag bu baax a baax a baax ci ne mboolem aajo yi sëñ Abdou dana ko faj ndax sëñ Abdou moom bi mu ganee àdduna lay faj aajo kon kooku aajo du ko jaaxal ñuy ñaan nag sëñ Abdou Khadir baay bayk Baye Cheikh li Baye Cheikh waxoon ne na daara ji jàpp ci saari ci moom mu jàpp ci baatin bi nañu ne loxo baay seex boobu mi ngi ci waaye dañoo bëgg mu gën a dem kanam lépp loo xam ne daara da koy soxla ngir mën a dox lépp luy murit di soxla ngir mën a dox ci biir ak ci biti yàlla nañu ko sëriñ bi jàpp ndala lépp ci barki sëñ Abdou barki màggal gi barki pàkk bi ñu taxaw mu bokk ci biir kër sëñ Abdou Khadre ñu ngi koy ñaan bu baax di rafetlu itam taxawaay bi ci wàllu média bi muy sëñ fàllu si la ak ñi mu àndal sëñ Moustapha Ndiaye ak ñëpp ñoo xam ne ànd nañ ci rek jërë ngeen jëfati kon ñu jox jëwriñ Serigne Modou Ndiaye. mbokk jullit mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen baax ci bisu màgg bu tedd bi ñu nekk di bisu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke waa mbooloo ba euh, ñu ànd fi ñëw ziar ci kilifa gu tedd gi sëñ Cheikh Abdoul Khadir Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ba naal yi mu yéenee liggéeyal Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ak Cheikh naa ci Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mu matale lépp ci barkeb Serigne Touba euh, ñu am ziar boo xam ne nag ziar bu kawe njort la wax dëgg yàlla ndax ziar nañ ko ci gën ngaa rafet ko ziar mu yëkkati ay kaddu cant ak ay kaddu ngërëm ak ay kaddu soññe jëmale ko ci daayira bi jëmale ko ci sëñ Amar jëmale ko ci maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo boote ci ginnaaw kër gi yëpp di ñaan rek yàlla nañ ko fekkee ay at yu bëree bëree bëree bëri bëri te at mu ñëw rek fekk fi sëñ bi mun kaa ziar te ziar bu nekk bu fi nekk rek di gën a kawe morom ja di gën a faaxo barke Sëñ Abdou Khadir Mbacke bi nga xam ne nii kenn ku nekk xam na ak ràññeekoom ci yoon wi waaye kenn kenn ku nekk xam na ak ràññeekoom ci jumaa yi Seex naa si Ahmadu Bamba waaye kenn ku nekk xam na ak ràññeekom ci bis bii nga xam ne mooy bisu àjjuma kon ñi ngi ñaan ci barke ràññeeku yooyu yëpp na ko daayira bi ràññee ko yàlla na ko mbooloo mi ràññee ko darajatu Seex naa si Ahmadu Bamba radiyallahu anhu asalaamaaleykum wa rahmatullah di ziyaare di gërëm waa daayira bi xale yu góor yi xale yu jigéen yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne leen kontaan nañ ci kontaan nañ ci mobilisation bi wax ndax comme ñun ñoo ko doon def te ñu dem ba xale yi di ko def ci defin bu rafet bii kontaan nañ ci di ñaan yàlla yàlla may ñu fekkee ko ay déwén yu bëri teewee koy at yu bëree baree bëri ci barke sëñ Fallou ci barke sëñ Abdou Khadre di ñaanal sëñ Omar yàlla yàggal ko fi moom ak ay rakkam yàlla may ko fan mu gudd bu ànd ak wér mu yàgg ñëw jiite ci barke Seydina Muhammad di jiital ci nuyoo bi sëñ Omar Ndiaye di ci teg sëñ maamoor mi nga xam ne mooy suñ jëwrin di ci njag njabootu Baye Cheikh gépp maa ngi leen di ziar te di leen ñaanal di ñaanal sëñ Omar yàlla na fi yàgg lool te wér yàgg ñoo ji te ñu yàgg koo fekke ci barke sëñ Touba waa ñu ngi rafetlu teewaay bi dañoo ñëwoon ci màggal sëñ Abdou Khadr comme ñun waa kër sëñ Abdou Khadr lañ amuñ lu dul bisu sëñ Abdou Khadr moo tax ñu bàyyeekoo ma Dakar ñëw fekk si waa daayira Touba Baxdaan ñu ànd ziar sëñ Cheikh mu ñaanal ñu. ziare waat mbokk yëpp di leen joxaat seen wàccuwaay di ñaan ziar bi nga xam ne moom lañ def si saa borom nangul ñu ko comme niñ ko daan defee chaque année euh, waa daar Touba Baxdaat di si ànd ak sëñ mu sëñ Abdou Khadir di xalifu sëñ Abdou Khadir di ñaan bépp ziar buñ fi def mu nangul ñu ko bépp ñaan buñ si def tamit mu nangul ñu ko daanaka euh, mën naa ne ziar bi 1997 wala 98 ba léegi ñu ngi koy amal ni nga xam ne moom la ko siñ kilifa daan amale muy Serigne Cheikh Ndiaye. ñu koy ànd ak doomam Serigne Omar Ndiaye ba dem ba nga xam ne gone yi juddu si daara ji ñëpp kenn ku si nekk saabu at mi ñëwee da nga koy waajal comme ni ko ñëpp di waajalee kon ñuy e, santaat waa daara Touba daat si waajtaay bi nga xam ne dañ koy def si daara ji waajtaay bu am solo di ñaan at mu jot rek ñu mën ko comme niñ ko daan mënee e, te di ñaan saa borom dolli ñu xéewal ak bëgg si sëriñ bi ba saabu jotee rek ñu matal ko comme niñ ko daan matalee waaw ñu ngi santaat bu baax a baax a baax tey tuubaat ci kàddu yi di ñaan sëriñ Cheikh mu sëñ Abdou Khadir ak sëñ Omar Ndiaye yàlla ak mbooleem ku nekk si yoonu murit suñ borom dëgëral leen te kàttanal leen ba saa buñ jugee pour siyaar leen si pour siyaar si leen rek fekk leen si jàmm barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf